asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo ngi yeesal sunu nuyoo di ko jëmale ci yéen di yeesal sunu cant di ko jëmale ci yéen di yeesal sunu ngërëm it di ko jëmale ci yéen di yeesal sunu ñaanit di ko jëmale ci yéen ci taxawaay bu rafet bi nga xam ni naka jekk mosulee na dañ ci di ko taxawe ci bis bii nu nekk di sant yàlla sunu boroom mi nga xam ni lépp it ci coobareem la amee ak ci ngëneelam ak jagleelam ba mu bindee roox yi ba nim binde suñ maam aadama ci ban ak ndox def ci moom leeram digal malaayika yi ñu sujjootal ko nga xam ne sujjootaluñ ban bi ak ndox mi de waaye ñu ngi sujjootal leer sunu boroom gi sunu boroom def ci moom te leer googu it di leer gu bàyyi ko ci jëmm yàlla ji te leer googu it suñ boroom bindu ci malayka yi moo tax mu sujjóotoon mu sujjóotoon leen ci ba ni suñ boroom dugale su sunu boroom dugal suñ maam aadama ak xawaa ci aljanna ba ni coobare sunu boroom dogale saytaane jax-jaxal leen ba la leen suñ boroom tere woon mu tàbbal ci seen xol ak xir ndax yaakaar naa ne kuñ ne woon yaa moom àdduna bi yépp ñu terale fi genn garab ci misaal boo doon jonjoog loola li fi àdduna lépp doyu la ba nga dem ca garab googee fa la ak xir mën a tàmbalee fa la ak xir mën a yem waaye lépp di liggéeyub seytaane it ci ñoom ba suñ boroom wàcce leen ci kaw suuf mujj def aadama ab yonent gannaaw bi mu defee ci coobareem xawaa di soxnaam suñ boroom di dogal njaboot di feeñ suñ boroom ci coobareem it dogal añaan feeñ suñ boroom dogal ci coobareem it rëy feeñ tax mu yónni ko muy ndawam ci njabootam googu yi xam nga ni cosaan li day leer la gu bàyyi ko ci yàlla waaye nag leer gi mi ngi feeñe ci ban ak ndox te ban bi ak ndox mi am na yum àndal yoo xam ni mel na ni mooy doon kiiraay luy dox diggante leer gi ak leer ga mbàyyi ko woon muy ruux soo ko doon misaal muy jëf yi doomu aadama di jëf lu mel ni ki rëy lu mel ni ki xir lu mel ni ki kañaan lu mel ni ki wax lu dëgg lu mel ni ki rambaaj doomu aadama nag tàmbali barab bi mu nekk di àdduna bakkan ak bànneex ak seytaane tax na mu dem ba fàtte josaanam muy leerug sunu borom googu yi sunu borom nag deñut mukk gannaaw sëñ maam aadama si sa doomam ba ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak yonent yi ko jiitu woon yépp lan moo doonoon seenu taxawaay mooy xaala subhaanaka yow yàlla day tudd naa sag sell la tudd naa sag sell mooy lan yow de yaay sunu josaan yaay sunu delluwaay yi adduna ji nu wàcce nag taqale noog bakkan ak bànneex seytaane du ñu ci xiir moo bëgg a dox suñu diggante ak yow mooy tax nag suñ boroom waxtu wu ne muy yebal ay ndaw yoo xam ni la ñuy fàttali jaam ñi kat mooy fii ngeen nekk saxu leen fi muy fii nu nekk di àdduna kenn ci nun saxu fi te fu ñuy bàyyikoo la it nag te bu ñu fi bàyyikoo it ci yàlla la ñuy dellu te yàlla ma ñuy dellu it la ca gën di ngën gi delluwaay mooy mu àndoo nag jaam bi bàyyi woon xel bi muy nekk fii ci kaw suuf ni josaanam sunu boroom la mu taqoo woon ak jihaadu nafsi ba yooyu yi nga xamante ni dana doon kiiraay digganteem ak leer gi yooyu yépp mën a deñ ni ma ko waxee léegi muy rasaa'ilal xalb rasaa'ilal xalb nag la ca gën a wér ci di ko dindi mooy di tudd yàlla te di ko settantal ni ko sëriñ Tuubaa Xaadima Mustafaa waxee xayru taami lil muridi saaliki dawaamu zikri sil jalaalil maaliki mooy tax tudd yàlla ak fàttaliku ko xam ne mooy sunu josaan ci moom lañ bàyyikoo ci moom la ñuy dellu war nañoo saxoo di ko tudd fuñ toll kon maa ngi dollee gën a dénk sa bopp tey dénk bokki taalibe yépp tudd yàlla ñu fonk ko ndax mooy ngànnaay liy dox suñu diggante ak seytaane buñ ko buñ ko néewal te buñ ko sàggane ndax soo amee ab noon boo xamante ni du tàyyi noon bi it du yuqat soo ko daanoon téeméeri yoon it mu jógaat feek soru teqalikoo ak sa teqaloo ak sa jëmm du la bàyyi mukk te war a wóoru ci pexe mukk la ta'manu makaida shaytaani qabla firaaxi ruuxi lil jusmaani kon yaakaar naa ne noonu boobu yi ngànnaay li ñu wax ni mooy dox sa digganteeg moom war nga ko fonk muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw nañ fonk tudd yàlla te di ko sellal te jëm yàlla rekk a tax comme doon ci nu nit boo xëyee li nga war a njëkk a def bàyyi xel say kàddu bàyyi xel sa juróom-ñaari cër yépp ba xam ci lan lañ jëngu jëm nga jiital sa yéene ju rafet te fas ci yéene toftal jëf ju rafet nga xam ni seytaane mi ngi nuy foglu waaye su boobaa it lépp lu mu la xool lu dul noona mbaa mu wax loola ko lu dul noona mbaa mu jëf loola ko ci lu dul noona na nga daldi tuub ca na mu gën a gaawee tuub gu sell dellu ci yàlla sunu borom subhaanahu wa taala kon sunu josaan mooy yàlla te it ci moom lañuy delluwaat noonu mu defee leer gi ci suñu maam aadama mu wàcce ci yonent yépp it leer googu du jug ci kaw suuf mukk ndax jaam yooyu yi njëkkoon nañ ko aajawoo ngir gindikoo ci ba mën a dellu ci yàlla seenu dox mën a rafet gannaaw ba seen yitte kawe seen pas-pas sell ngir ñu mën a am ak jokkook seen borom subhaanahu wa taala kii raay yi dox seen digganteeg seen boroom it mën a dañ bañ di ko dund di ko yëg ci lépp lu ñuy gis ci lépp lu ñuy dégg ci seen yëngu yépp sunu boroom du dañ di teew ci seen xol ñu di ko teewlu ci anam yépp màggam kawewaayam sellaayam jaam ñi waxtu wu ne dañuy soxla loola mooy tax sunu boroom it waxtu wu ne it danay tawféexal ay jaam te ñu yëg loola di ko dund di ko xam du loo xamante ni nag jaam ñépp am ci jooju yitte ndax boo demee ci risaalatu tayriya bi imaamu xasali yi ah bi picc yi nekkee ci àll bi naat na ndox maa ngi fi ñam waa ngi fi dara jotu leen ñu ngi dund te nu mu leen neexe na ci la leen neex manqué wuñ dara dafa am ñu xalaat ne ah nun day defe naa ne xanaa jékki jékki wut am lii ñu am ci ay xéewalit damaa defee ne xanaa am na ku ñu sàkk am na ku ñu moom am na ku ñu koy xéewalal ndax duñ ko yittewoo xam yittewoo dox jëm ci moom wala déet ñenn ne noonu loolu luñ koy doyee nun noo ngi dund noo ngi lekk noo ngi naan yéen ko da ngeen noo bëgg a teg ay coono képp teg leen seen wax ji ci suuf ñeene déedéet nun de ki nu bind melal nu kàttanal nu xéewalal nu war nan koo jéem a xam kooku ku mu doon ñu jóg wuti ko ngir jéem a xam yàlla jéem koo dund jéem a jokk ci leeruk sunu borom góob yi subhaanahu wa taala bi nu jógee mbooloo lañ de waaye ñenn ñi ci yoon wi dañ des bi ñu jógee yàggul dara mbooyu mu tàng feltoog ñoom ñu ñëmiwut mbooyu mu tàng ca la njam bi ñu doxee tuuti taw bu metti ñenn ñi nga xam ne ñimewuñu taw ca lañ des biñ demaatee ba ci kanam naaj wu tàng jër ñimewutu ñi ñimewutu naaj ca lañu des ñu dem ba mu yàgg ab xiif am ñi ñimewutub xiif ca lañu des ñu demaat ba mu yàgg aw maru metti am ñimewutu mar ca lañu des ñu dem ba mu yàgg mu sedd guyu ñu ñimewutub sedd it ca lañu des yooyu yépp nag ay misaal la yoo xam ni kiy dox jëm ci yàlla dana bari lum jéggi dana bari fu mu jaar door a àgg ndax nit su jógee dëgmal lu baax dogu woy léeg-léeg bakkan du la ci bàyyi léeg-léeg bànneex du la ci bàyyi léeg-léeg seytaane du la ci bàyyi léeg-léeg nit ñi duñ la ci bàyyi bu ñu waxee nit ñi nag mën naa doon ab xarit mën naa doon mbokk mën naa doon dëkkandoo mën naa doon ku ne ku ne rek mën na koo doon ndax bariwaana kat ku xuus ba jàll ci yenn daraja yi wala ba yitteem àgg foo xamante ni ci wàllu sax adduna yitteem àgg na ca bari na ñu ko doon dogale di ko wax lii ngay def nangam mën na la ca fekk soo ko bàyyiwut nangam waaye nag mu dëgër bopp xam fa mu bëgg a dem kaweel yitteem sellal pas-pasam ba àgg foofa ci wàllu adduna rek waxumala ak nag ci wàllu yàlla faw nit ki day kawe yitte te sell la ko te jëm yàlla rek a tax noonee nag lañu def ba ñenn ña dem ba àgg waaye ña yegg nag su buur ba sant leen gërëm leen xamal leen ni su ngeen toogoon it maay seen borom bi ngeen dikkee it maay seen borom waaye nag yitte ji ngeen def ba agsi ci man lépp lu yàlla ci teraanga rek danaa leen ko defal teraanga ji du yem ci yéen waaye danaa leen jox ci teraanga loo xam ne su ngeen delloo ku leen bëgg ku leen sopp ku leen jublu teraanga joojee dana ko làmb waaye ku leen noonu it dana dajeeg sama mbugal man haadaani waliyan faqad aadantuhu bil harb képp ko noonu sama waliw dafa mel ni suñ borom nga déclaré guerre ndax dafa am ci yoon wu mu jaar ba suñ borom tànn ko ci mbaaxam ak yërmandeem ak tawféexam ba defal ko la mu ko defal kon nag yoon woowu yi ca suñ maam aadama ba fii nu toog mooy yoon wi fi nekk moom la suñ borom digle ñu jaar ci muy waaye na hada sirati mustaqiman fattabihuhu te yoon woowu yi moom la ñu dog kon nag lan war nun ñépp mooy fas yéene doon takk ndeeru rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam doon takk ndeeru mawlaana seyxina alxadim doon seeni kuutaay ci jikko ju rafet ci melawu rafet ci jëf ju rafet toqi ci sunu bopp toqi ci sunu njaboot te jëmmi sunu borom rekk tax waajur wu ne war na ko ci njabootam mu fexe mu xam diineem di góor-góorlu ci di ko jëfe te jëmmi sunu borom rekk tax ke kum doon ci nun fu mu mën a ne ci kaw suuf nay góor-góorlu nay farlu ndax njaboot gi kat bari na fa foo leen fa tudd ñu naw leen lool yëkkati leen lool teral leen lool loolee nag nan ko def ak laxasaay di góor-góorlu di farlu te jëmmi suñu borom rekk tax kon noo ngi sant ñépp noo ngi gërëm ñépp ci liggéey yu weesu yépp taxawaay yi rafet na taxawaay yi matale na waaye nu xam ne it nag it ni ma koy waxee waxtu wu ne ci sunu kanam feek sunu ruux yi teqalikowut ak sunu jëmm nanu xam ne li nu war jëpp jëf ju nu sottal ñoo nga ca jeneen di ñaan yàlla loola sottal ko ci jàmm ak salaam ak tawféex ak sutura noo ngi sant nag bokki taalib yi ci biir réew mi di sant bokki taalib yi ci bitim réew di sant kóllëre yi di sant soppe yi di sant bokki jullit yépp ba ci ñi nga xamante ni sax bokkuñu diine tañ ay te ñuy ay soppe te luñ nekk ñu nekk ci ak ñun taxawaay yi rafet na taxawaay yi matale na muy ndaw muy mag muy góor muy jigéen kenn ku ci nekk sa taxawaay yi sunu borom bi nga xamante ni ku deñ kumpale ci lépp yëg na ko gis na ko yàlla moom yi nag la ñuy ñaan mu téyel nu boppam te sàmmal nu boppam te aaral nu boppam ndax képp ku yëkkati kàddukat da nga naan sëriñ bi yàlla na lu téyel sa sa bopp nañ jeex ci yow fekk sëriñ bi nekkut sëriñ bi amut yàlla rekk mooy aji am yàlla rekk mooy aji nekk yàlla mooy borom kàttan yàlla mooy borom tawfiq yàlla mooy borom dimbal dana koy jaarale nag ci jëmm joj dana ko muure ban ak ndox waaye def ci moom leeram loolu buñ koy jaawatle fii nu nekk xar kanam yi may jan lool yeneeni xar kanam yu bët yii munta gis ñu ngi fees dell ci pey bii nu nekk di nu jéggulul yàlla di nu ñaanal yàlla di yéegal sunu cant di yéegal it sunuy sàbbaal di yéegal sunu njàng alxuraan di yéegal sunuy listixfaar ci sunu borom bi subhaanahu wa taala guddi gii képp ku ci fanaan teew ci booy dem doo yóbbaale benn bàkkaar ci mbaaxu yàlla ak yërmandeem ak tawféexam da nga mel ni kuy dóor gane àdduna ci bàkkaar ba keroog nag àdduna di tukki fuñ ko man di defe ci béréb bii képp ku fi teew loolu mbaaxu yàlla la yërmandeem la tawfee xam la li ñuy ñaan ñëpp mooy ku fi teew nga indaale pas-pas ak yitte te nekk fi lu suñ borom bi subhaanahu wa taala gërëm ndax damay wax ni at mi yaatu na fan yu bari la ay weer la ay fan la te doomu aadama day def ay rëcc-rëcc dafa am jëmm yooyu soo doxee ba dajeeg ñoom yàlla mën na laa jéggal mbooleem loo weesu woon ba mel ni mosoo ko def am na weer yooyu boo doxee ba dajeeg weer ya yàlla mën na laa jéggal ci lépp loo xamante ne weesu woon nga ko am na gudd yooyu it ku dox ba dajeeg ñoom yàlla suñ borom mën na laa jéggal lépp loo weesu woon ba nga mel ni mu mosoo ko def waxtaane tawféexi suñu borom nag lu jafe-jafe-jafe la ci ki nga xamante ni dafay xatal mbirum yàlla te yàlla mbirum lu yaatoo yaatoo yaatu la waaye li nu xam ci moom yàlla te muy xam-xamam boo xam ni la xadir waxoon Muusaa bi mu dajeeg moom te Muusaa bëgg xam-xam te xëy na jàppoon na ni moom ku fee sax xam-xam la ndekete moom tàmbaleegut sax a xam fa ñu daje man nga ni dex la man nga ni géej la wala ci ñaari géej yu daja la dafa seen am picc mu cof ci ndox mi jóg mu ne ko sa xam-xam ak sama xam-xam lee picc mi cof ci ci ndox mi jóg noonu la demee ci xam-xamu sunu borom képp koo xamante ni nag munta peeg xam-xamu sunu borom lu ab jaamub yàlla wax na nga ca tey na nga ca def ndànk nit nag am na sañ-sañu gëm am na sañ-sañu weddi ndax loolu sunu borom moo ko njëkk a wax kum soob nga gëm kum soob nga weddi am na feneen fu mu wax ni it lii de mooy ak waare képp kum soob nag na teel rafetal pas-pasam rafetal kàddoom rafetal jëfam mooy jàpp aw yoon wu jëm ci yàlla te bañ koo wàcc muy ab delluwaayam ci lu nëbbu ak ci lu feeñ waaye nag nit bu amee setantal amuk xàmmee amuk ràññee lam dund moom kenn du ko ko teree mën a xam lam yëgit kenn mënu ko ko teree yëg la ko suñ borom wanit kenn mënta tere loola moom mu xam ko mu yëg ko mu dund ko te loola nag mooy li am solo ci ab jaam toll nañ ci jamono boobu nag waxtaane ci yàlla dara lu jafe la waxtaane ci ay mayam it lu jafe la la ca gën mooy dëxañ ko ci biir waaye li nu xam ci mbaaxam ak yërmandeem ak tawféexam bari na lu ab jaam di ragal te bu teewee fii suñ borom dox di gëm ak loola tey ak ëllëg bare na lu ab jaam di yuutu it te bëgg caa yegg te bu teewee fii te teewee fi pas-pas ak yitte sunu borom mën na ko ko jàpp ndalal jàpp ndalin woo xamante ni dana ca am mbettum tawfiq mu kawe njortam ndax fii kat buntam la ci ay buntam moom suñ borom subhaanahu wa taala ci képp koo xamante ni sóobu na ko te rafetal sóobiin wa te ànd ak yitte ak pas-pas kon noo ngi sant bokki jullit yépp di sant bokki taalibe yépp taxawaay yi ni ma ko waxee léegi rek rafet na dayob rafet jëwriñ yépp ak topp jëwriñ yépp ba ci man mii di wax te gën a doy di ci yéen tey kenn ci yéen cant gi làmb na nu nun ñépp ci gën ngaa rafetin anam muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw taw fee xam nag lu mu nu fi gën di bàyyi ñu di ko gën di dund ci lu nëbb ak ci lu feeñ lu ci suñ bët yi gis tey jii nan xam ni du asakay liy dikk te lii may wax ay jëlukaay ñu ngi koy jël ci kàddu ak ci melo danañ dem ba fii nu jàkkaar lool danañ fi gis lu nu yéem lool waaye du yem fii de ak ci yeneeni béréb yooyu nit a nga fay romb amaana doo doo fa seen lenn lu jëmm te buñ doxee ci kanam tuuti da nga fa seen lu jëmm te la fay jëmm it luy delloo nit ñi ci yàlla rekk la lu leen koy fàttali rekk la lu yokk seen tawféex rekk la lu yokk seen jikko la lu yokk seen yitte la jëmale ko ci yàlla sunu borom subhaanahu wa taala ndax yàlla moom mbiram moo ko yoral boppam man mii di wax ak yéen doonuma ci dara ndax am na lool ku ko settantal am na jaar jaar yooyu ku ko settantal bu baax da nga xam ne yàlla rek moom moom rek moo man loola waaye benn jàmm ak gudd ci man loola kon waxtaan wi mu gudd ak mu gàtt lépp ak cant rek la liggéey bi nga xamante ni nag ànd nañ di ko def kenn ku ci nekk lépp lu mu ci yéene yàlla na ko ci yàlla defal lu kawe njortam nun li nu war mooy yéene te yéene ji sell te muy dëgg ci nun ndax yàlla moom noppi na ci li war a feeñ lépp loola suñ borom noppi na ci mooy moom kay mooy def tawféex sagal nu dimbali nu ba loolee suñ loxo mën a nekk ci biir loola yàlla na nu yàlla gën a dimbalee loola nun ñëpp maa ngi digal it saa bopp ak bokki taalibe yi ñu gën a fonkaat daje yi ni daje di fàttalante ak a dénkante ak a labirante muy ci diiwaan yi muy ci kuréel yi moo xam ci dëkk yi la moo xam ci dëkk yoo xamante ni foofa it ay kuréel dañ faa nekk ñoom ñépp nañu gën a takku gën a boole seen bopp te gën a nekk benn fu fi waay nekk ni ma ko waxee léegi it ngay soxna ngay góor yàlla na nga góor góorlu ci jikko ji rafet na nga góorgóorlu ci melaw rafet na nga góorgóorlu ci jëf ji rafet na nga góorgóorlu ci nekk royukaay ci fànn yëpp ci anam yëpp buñ bëgg mukk aw tagg bu ñu ragal mukkit aw ŋàññi buñ xool mukkit ku nuy jublu buñ xool mukkit ku nuy wan gannaaw waxtu wu ne daal nun suñ diggante ak sunu borom na leer ci nun na set ci nun bu loolu xasee mat leneen la ca des lépp amatul solo nit ñi ñépp ku mu doon bi ngay ñëw ci kaw suuf yow rekk yaay ànd booy dellu it yow rekk la kon buñ la tax a def buñ la tax a bàyyi buñ la tax a jàpp buñ la tax a téye yàlla moom la koy tax a am mooy dëggu mooy dëggal mooy sellal te jëmmam rekk tax te it boo nekkee ci yàlla it doo yuxat doo yàkkamti te doo tax yi ndax suñ giirug dund ci moom lañ war a xëy ci moom lañ war a gont ci di ko bëgg ci di ko jaamu te di ko sellal te bañ caa ak dara lu may bëgg ko rek ni ma ko waxe sànq loolu mooy li nu war nun ñëpp kon maa ngi dénk njaboot gépp nu gën a boole suñu bopp te gën a nekk benn te jullit ba ba jullit dee am muy ba suñu borom bindee suñu maam aadama andi ko ci kaw suuf def ko muy ab yonent ku mas a am yitte ku mas a am pas-pas ku ko mas a kawele bu nangu mu gënu koo kawele bi lislaam amee ba fii nu toog di ko waxtaana it ku mas di jëf ci lislaam it bu nangu koo ko ëpp nu yitte bu nangu koo ko ëpp nu pas-pas bu nangu koo ko ëpp nu dogu ndax lépp loo gis ak dogu dong la aku gooy moo cay eggale ab jàmba am na ci loolu nag ndimbalal sunu borom la yàlla moo koy def ci jàmm bu ko soob waaye am na ci loolu it da ngay jug mu gàttandu la nun nooy wax mu deñ waaye suñ borom du wax mukk luy deñ soo xasa boo ma def nii boo sebre woo ma xasabo boo xasaboo ma jéegawu boo boo boo boo jéegawoo ma ñukk boo ñukkee ma daw loolu mooy li suñ borom wax te fuñ toll it ñu sax ci du tuub nañu sax ci du tuub barewaana luy jafe nit ki ñàkk a tuub rek mooy tax loola di ko jafe nit ki foo sëlmalee julli wala ngay julli yor yor wala léeg-léeg sax nga ju jàpp ba sell julli sa ñaari ràkka nga tuub dellu ci yàlla amul benn bàkkaar bu yàlla du jéggale lu dul bokkaale te day fekk nit ki faatuwaale ko waaye lu dul loolu suñ borom mën na koo jéggal ci digganteem ak jaam bi ak lu bàkkaar bëri yi bu tolloon ni pepp suuf yi su tolloon ni duusi ndox yi duusi géej yi su tolloon ni xobi garab yi suñ borom mën na koo jéggale rawatina ci guddi yu mel nii ci mbaaxam ak yërmandeem ak tawfeexam jëf yi ngeen jëf ñaq yi ngeen ñaq yëngu yi ngeen doon yëngu doon ko waajal ak biñ agsee ci bis bi ngeen doon ko jëf li tàmbalee ci docteur yi seen taxawaay bu rafet seen yitte ju rafet ñi nga xamante ni it ñoo doon ne ci durus bi ak ñi newoon ci ñam yi fànn goo jël ña ca doon taxawee seen jëf jooju jëpp da ngeen xam ne jëf la ju tege ci loxol sunu borom subhaanahu wa taala yadullaahi fawqa aydihim sunuy loxo ñu ngi ko teg ci kaw loxol sunu borom te lépp lu mu ci doon it lu ñu dajee ngërëmam la ngërëmam loolee nag yàlla nay sekki nay sakkan nay sax te yàlla bu ci meram topp mukk yàlla na nu suñu borom defal mujj gu rafet yàlla na nu suñu borom defal mujj gu rafet yàlla na nu suñu borom defal mujj gu rafet sunu ñaan ak yéen loolu rekk la ndax xam nañ ni day ba àdduna sosoo ba fii nu toog di ko waxtaane liñ dund ci suñu diggante ak moom mën na na waat ci kaamil bii nu téye nii suñu borom musta defal ab jaam lu gën lim nu defal defalut ku teew it lu gëm li lim nu defal defalut kuy dikk it lu gën lim nu defal ndax yàlla moom li gën a kawe mu di ko defal ab jaam mooy mu gindi la ci sa digganteeg moom yàlla kum gindi de séenatu la dara te sunu borom day subhaanahu wa taala gindi nañu jëmale ni ci moom kon nag sunu ñaan lenn rek la mooy mu dox suñu diggante ak seytaane yàlla na yàlla dox suñu diggante ak seytaane yàlla na yàlla dox suñu diggante ak seytaane suñu ànd bii nu ànd yàlla na ko yàlla saxal te rafetal ko sunu ñaan day lool rekk la amut geneen ñaan gu ci topp ndax ñaan gi gën a kawe ci sunu ñaan mooy mu dox suñu diggante ak seytaane ndax ndab loolu lépp loo xam ne lees di bëgg lépp teg nga ca sa loxo lees di ragal lépp mën nga caa mucc la ngay tiit ni mën naa dox sa diggante ak loola lenn rekk la muy seytaane yàlla na sunu borom nag dox suñu diggante ak seytaane moom yi ci lu nëbb ak ci lu feeñ yàlla na sunu borom defal mujj gu rafet képp ku fi indi aajo yàlla na ko yàlla faj ku fi indi tawat yàlla na ko yàlla teggi kenn ku ci nekk la mu bëgg di ko yóotu mu mel ni lu ko jafe yàlla na ko ko yàlla yombalal lool te jàpp ndal ko ko lool te defal ko ca ay mbetti tawfeex yu kawe njortam ba mu daje caag lu kawe njortam lool lépp lu ab jaam di ragalit yàlla na sunu borom dox diggam ak loolee moo xam ci sunu jëmm la moo xam ci sunu njaboot la yàlla na nu yàlla jéggal ba faw njéggal gu sax dakk yàlla na nu sunu borom goreel ci sawara yàlla na nu sunu borom defal nu jaam yu mu goreel ci lu nëbbu ak ci lu feeñ zaahiran wa baatinan cant gi am na fu mu tàmbalee waaye amut fu mu yem asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf yee salaat cant gi rek ci taxawaay yi nga xam ni bi weer wi tàmbalee bokki talibe yi ñu ngi ko doon taxaw ci dogal woy woor yi tàmbalee ko ci kër Mbay Faal taxawaay ba rafet na dayub rafet te matale na it dayub rafet matale na it dayub matale ba fii ci Manaarul Huda ba Taybatul Karim ci Tuubaa ba Jannatul Firdaws ci Cees ni ma ko waxe woon sànq taxawaay yooyu nag day taxawaay yu ama ama am solo ndax li may wax waxtu ne jaam bi li muy def di ko jëmale ci moroomum jaamam ngir jëmm yàlla bokk na ci jëf yi gënal sunu boroom ki gënal yàlla ci bindee fi mooy ki gën a jariñ bindee fi yàlla yi loolu dundal nañ ko dëgg dëggi dundal kon noo ngi ñaan sunu borom bi may na nu fekke ko ay at yu bari te mu ànd akuk wér akuk wérle ak mucc ak mucc le xol bu sedd day mënta weesu xol bu sedd mbégte it mënta weesu mbégte waaye bu ko doon romb loolu lépp dañuy wax ni romb nañ ko ak sunu diggante ak yéen muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw jëf yi matale na taxawaay bi it matale na lañ ciy sante sunu boroom nag mooy lépp ci loxoom la tege te lii may waxtaane kat ci ngëneelal sunu boroom ak yërmandeem ak jagleem maanaam du asakay la fa sunu boroom lu ma ci mën a wax rekk du asakay la fa moom te jaam yépp it xaj nañ ci ñun ñi ñépp ku ci ne ëllëg yàlla mën na koy def muy ràmmukat bu mën a ràmm mbooloo te du wàññi dara ci ngëneelal yàlla du wàññi dara ci yërmande sunu borom du wàññi dara ci jagleeg sunu borom sunu borom kat ci coobareem fii ne man na bu ñu bàyyikoo fii nun ñi fi teew ñépp fanaan fi bu ñu xëyee ku ñu dajal mu jéggal ko ba ba jant di sox te du wàññi dara ci ngëneelam du wàññi dara ci jagleem ci mbaaxam ak yërmandeem ak tawféexam ak sax tawféex yu gën a kawe loolu yi ma wax ndax xar kanam yi ngay gis kat danga gis xar kanam yu bëgg yàlla lu ñu doy di doy di lu ñu lot lot lot yàlla mi nu bokk bind da xam na ni moom rekk la nu bëgg te dara dolliku ci su cër yi dee jeng di jëm feneen it xol bi da moom rekk a ci nekk te yàlla day xam na loolu moom rekk la nu bëgg ku ci juum ba wax loo wër te wax mbaa nga gis ko mbaa nga jëf ko rey sa bopp sax boo ko mënoon danga ko def ngir am gàcca ak ngir am kersa loolu da yàlla xam na ko waaye xol boobu yi nga xamante ni nag moom la yàlla soxla ci nun foo ñu toll nañ fexe ba moom rekk mu nekk ci te ba te dara bañ cee nekk ak moom cër yi nga xam ne nag du ko bind ci ban bi ak ndox mi ñuy ñoddiku di ca jëmit lu mu yàgg-yàgg yaa allah moom rekk la nañ ci sax te di ko teewlu moo nuy fóot ban set wecc te su boobaa it loolee ca cër ya lay yem waaye du mën a yegg ci xol bi te lu ëggut ci xol du mën a dox sa digganteeg sa borom te du mën a doon ay kiiraay sa digganteeg sa borom te du doon ay lëndëm lëndëm yu dox sa digganteeg leeruk sunu borom bi kon nag noo ngi leen di sant noo ngi leen di gërëm réew mii nga xamante dañ cee bokk dëkk te ñëpp tiitoon ci ci ci jamono yi ni weesu yàlla dogal ci lii mu ci dogal muy dogal boo xamante ni ñi ëpp day neex na leen te am nañ ci yaakaar te am nañ ci bànneex ak mbégte yaakaar jooju yàlla bu ko yàlla tas yàlla na leen sa borom taxawu muy njiital réew mi fi nekk ak ñi koy jàppale ñëpp ba yaakaar yi nit ñi am ci ñoom diis na gann waaye yàlla mën na koo woyofal ci mbaaxam ak yërmandeem nun ñi fi teew ñëpp nañ maase ci ñaanal leen yàlla bu seytaane dox ci seen diggante ndax seytaane dafa bari doole de te fu mu xaju dong ngir ci lay dugg te yaakaare yaakaar naa ni ko nit ñi yanoo ba lii ci am lépp am ci képp kuy jàng alxuraan baa ngay tudd yàlla del ñaan yàlla yàlla na suñu borom dëggal yaakaar yooyu ndax yaakaar yooyu mooy jàmmi réew mi mooy jàmmi njaboot gi te loolu su amee yaakaar naa ne dana tax nit ñi seenu nekkin gën a yéwén ci fànn yépp bañ gën a mën a tal seen diggante ak seen borom waxtu wu ne dañ ko war a tal waaye léegi-léegi nag jaam day saalit ba tax léegi-léegi nekkinam ci wàllu àdduna bu ca amee génnug tiitaange wala génnug njàqare dana jeexital ca nam war a jaamoo yàlla loolu yàlla mënu ko móole yàlla mënu ko bindee kon nag ñoom it ñoo ngi leen di ñaanal sunu borom defal leen tawfiq ba yaakaar yi nit ñi am ci ñoom yàlla bu yàlla tas yaakaar jooju yi ñu wëlbatiku doon jaami nit ñi nit ñi doon seeni sang ndax ki gën ci nit ñi kat mooy ki doon seenub jaam di leen liggéeyal ni ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee kon noo ngi sant bokki taalibe bi yépp noo ngi gërëm ñépp ni ma leen di ñaanale it noonu lay sàkkoo ci yéen ñaan ndax kenn ku ci nekk bàyyi na yitteem yépp wane ni yàlla day moom a jaral lépp ngir nu bokk teew fii di ko sàbbaal di ko sant ci kenn ku ci nekk la mu yëg ci digganteem ak moom yàlla na nu yàlla dollil te sàmmal nu te aaral nu te taxaw nu te dimbali nu bokki taalibe yi féete ci biti te di ko ànd ak nun ci seen jëf ci seenub taxawaay ak ci jum jumtukaay yi ñu koy toppee kenn ku ci nekk fa mu nekk ne la fa xéwal yi fekk ne la fa tawféex yi fekk ne la fa njëggal gi fekk ne la fa ngëneel yi fekk ne la fa jàppandal yi fekk mu làmb àdduna bépp bépp bépp bépp bépp yàlla na nu yàlla may nu bokkaat fi daje ci daje nu gën a rafet gën a tawféexe gën a jàppandi ci mbaaxam ak yërmandeem ndax saa suñ fi dajee day bokkaat yëg tawféex ju kawe ya weesu woon noonu yi rekk nag lay jëflanteeg nun ba keroog ñu di ko fekk ñu nuy wuutu ci liggéey bi nekk ci loolu mbaaxam la yërmandeem la tawféexam la ndimbalam la waaye du jaam bu doyadi bii di wax waaye yàlla day moo def tawféexam joo xam ne man mii di wax ak yéen xam naa ne duma ci dara waaye lu mu nu fi gën di bàyyi it ñu di ko gën di dund mu di ko gën di feeñal ci béréb yi ak ci jëmm yi ci mbaaxam ak yërmandeem ak tawféexam yàlla na leen sama borom teg ci yoonu jàmm kenn ku ci nekk yàlla na ko yàlla taxawul boppam dox diggam ak seytaane dox suñ digg ak ndog yi dox suñ digg ak pakk yi dox suñ digg ak musiba yi dox suñ digg ak balaa yi yépp kenn ku ci nekk am na lu mu téye ci xolam de loo xamante ni bëgg na ko ci digganteem ak boroomam loola lu mën a doon yàlla na ko ci yàlla defal la kaw njortam ci aw yiw ci bu dee lu muy yóotu la tam sedd guy bu dee lu muy ragal la yàlla bu mu dajeeg moom fii ci adduna yàlla bu mu dajeeg moom ëllëg yoomal xiyaam yàlla na nu yàlla defal mujj gu rafet yàlla na nu yàlla defal mujj gu rafet yàlla na nu yàlla defal mujj gu rafet li nu bëgg ci sunu bopp bëgg ko ci sunu njaboot yàlla na nu ci yàlla defal lu kawe sunu njort buñ gis sunu bopp buñ gis sunuy jëf nañ koy dund moom rek te di ko gis moom rek te luñ gis mbaa ñu dégg ko yàlla nañ ko ca gis taahiran wa baatinan asalaamaaleykum wa rahmatullah